njiit ju bees situation bu yees ci mool yi nga xamante ni seen xel dal na lool ci coppite régime bi. yëg-yëg bu nganda sax am si contentement bu rëy rëy rëy ndax régime bi fi nekkoon booy xool dañu tayle suñu géej gi tayle ñu ñun doomu moole fii booy xool heure bi boo fi daan ñëw fii yëpp dafa fees di la ay jeunes ñëpp dem nañ mbëkki ñii ñu ngi ci kaso bi ñii dee nañu ñii yegg nañ ñii kenn xamu si lu ñu nekk. am nañ ci yaakaar bu baax parce que loolu la ñu rupture boobu ñu def noonu rupture bi ñu def ci élection yi looloo ko waral am yaakaar moo tax ñu changé seet leneen lu gën quoi lu ñuy jëmale kanam looloo waral ñu def changement bi. jafe-jafe yi ñu doon dund kenn mënu ko xayma. ay engagement yi ñu deful ay tolof-tolof yi nga xamante ni moom la ñu jàpp ni la gouvernement sortant bi la leen teg. lépp ak cause de nguur gu fi nekkoon ak seen bonne gouvernance seen manque de compétence. tayale suñu géej gi bàyyi ndaw ñi ñoom ñu nekk si lu leen neex. ci loolu ñu gis ni rek am na ay problème yi gën a urgent yi nga xamante ni. war nañ ko saafara. ni mu gën a gaawee. mooy que ni mooy li ñuy wax rek parce que soo gisee xam a état continuité la quoi xam nga nguur gi dafa nekkoon ci benn lancé. ñoom dañu war a ñëw gën a renforcer comme li président Diomaye di wax renforcer waat les capacité capacités waat affaire yi ba nga xam ni doole jooju ñu bëgg muy bateau étranger yi ñu limité ko wàññi ko xoolaat bu baax normes yi nga xam ne moom la ñuy pêcher ci géej gi loolu dafa am solo attente boobu rek la ñuy xaar quoi pour pêcheurs yi mun ci gis seen bopp ci géej gi parce que affaire yi métti na trop suñu bëggee nag gàddaay bi jeex nañ ñu defal li ñu bëgg mooy bateau étranger yooyu ñu arrêté ko. ginnaaw bi ñu ndokkalee njiit bu bees bi ñu ngi am yaakaar rek ay ci moom mu soppi li nga xamante ni moom la ñuy dund. mais am yaakaar bu baax a baax ci président Diomaye di ko ñaanal nag mu dal ak jàmm xam nga di ko ñaanal mu dal ak jàmm yan bii ko sénégalais yi yan yàlla na oyof ci moom ak ñi mu àndal yëpp ak tous les sénégalais parce que ñun ñëpp ñoo ci mun a jàpp du Diomaye rek lañ jox affaire yi toog seetaan wala di xaar toog muy dox ni ko gars di waxee. di yaakaar ni itamit que dinañ ak accord yi nga xamante ni CONAPED teg na ko.